gëm sa bopp du parti politique c'est un mouvement gëm sa bopp c'est pas un slogan c'est un comportement gëm sa bopp se veut une philosophie boo xam ne kenn ku nekk ci ñun lii ngeen taxaw ne da ngeen di defar Sicap le développement c'est d'abord à la base le développement c'est l'engagement de tout un chacun ce pays a besoin de ses dignes fils yéen ñu déterminer ñu engagé wu et c'est ce que j'ai essayé de faire je pouvais rester dans ma zone de confort mais le problème c'est pas moi parce que ñoom politiciens yi li ñuy wut ci politique man yàlla jox na ma ko te politique gu ma malheureusement on est dans un pays où quand tu as des ambitions quand tu veux faire quelque chose tu deviens une cible léegi ñu ngi may wax ne sur cette histoire boo xam ne du ma ciy bëgg di wax l'affaire des médias ou le redressement de des médias ñu ne ma le ministre de l'économie et des finances nee na qu'il m'invite à un débat je dis monsieur le ministre vous vous trompez de cible des médias à une administration je suis certes le promoteur des médias est dirigé par un conseil d'administration. Inch'Allah, un des administrateurs sera certainement à votre disposition pour faire face à ce débat télévisé bi nga may invité man su ma yitte feneen la jëm man su may jàkkaarloo ci débat télévisé Macky Sall lay jàkkaarloo su may def débat télévisé moom njiitu APR lay jàkkaarlool te bu may wax ak moom xam naa bu baax li ñuy wax on parlera du banditisme foncier à Dakar à Thiès on parlera de l'industrie de la corruption au Sénégal loolu benn nit dong moom laa ci mën a janool mu wax lu sénégalais yi mun a dégg muy Macky Sall bu ma jàkkaarloog Macky Sall ci débat télévisé bi nga may invité yow monsieur le ministre de l'économie et des finances dinaa wax ci commerçant yi ñu xoj ndax ay taxes douanières dinaa wax ci baykat yi nga xam ne mënatuñu am dara ndax soppi nañu leen ay yalwaankat ci débat télévisé boobu dinañu wax sur les conditions exécrable, les conditions difficiles dans notre système d'enseignement. Mais dinañ wax également sur la revalorisation des salaires des enseignants. Kon bu ma amee ku may jàkkaarloon c'est le président Macky Sall, l'administration de des média Je suis sûr elle est impatiente d'avoir un débat télévisé avec vous, monsieur le ministre. l'administration sénégalaise aujourd'hui utiliser pour bâillonner, utilisée pour nërmer un mille 2003 la commencé dugg ci business 2003 ba 2021 kenn mësuma takkal lenn lu jëm ci mbirum impôt waa xanaa tey lañ ma mës a la ñu mën a wax ne Bougane géey société yi mu moom du ñu fay impôt tey lañ ko mën a wax et bu ñu toogee ba 18 ans après ñuy doog a wax ci loolu ça veut dire que notre administration est défaillante parce que ñaata milliards alors la ñu perte boobu ak léegi je reste convaincu que le Sénégal nous appartient tous